nag bu ñu ko waxee dafa nekk personnalité bi nga xamante ni moom dafay inspirer pour aider les autres kon altruiste bi tamit nekk ki nga xam dafa am facilité euh, rentrer en contact ak nit ñi par ses émotions ndax vu que dafay émotionnel dafay mën a percevoir émotionnel émotion wu nit ñi aussitôt tey bu jàkkaarloo ak yow rek tey dina mën a xam sa émotion bu baax da auzu billaahi mina sheytaani rajiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin chers internautes chers abonnés maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni ngeen ko xamee nag ñu ngi nekkoon ci suñu série bi nga xamante ni mooy euh, les types de personnalité ennéagramme euh, ñu nekkoon nag ci suñu euh, centre instinctif ci semaine bi ginnaaw bi ñu traité centre instinctif bi ñu ngi amoon personnalité numéro un amoon ci numéro neuf médiateur amoon ci numéro huit mu nekk le leader ñoo jóge foofu nag tey ñëw bëgg a traité ki nga xamante ni mooy euh, euh, mooy centre émotionnel bi ginnaaw bu ñëwee ci centre émotionnel bi nag dañ fay am euh, personnalité numéro 2 muy altruiste ñoom fa numéro 3 mooy le battant ñoom fa numéro 4 mooy le tragique romantique donc centre émotionnel bi comme niñ leen defee defale woon ci introduction bi ku bëgg a comprendre centre yi dangay dellu si suñu euh, vidéo bi nga xam ne mooy introduction bi pour comprendre centre yi lan lay tekki kon képp ku daj ci vidéo bi na xam ne am na vidéo yu ko jiitu donc euh, pour mu dem référé foofu bu ko defee tey ku nekk di nga mën a xam sa centre bu ko defee di nga mën a xam aussi sa type de personalité balaa ñuy continuer nag ñu ngi sàkku si yéen ngeen abonné ci canal yépp ngeen partager vidéo yi waaw vu ko gis naa ni nit ñi moom boo waxul ci sëy rek du ñu am du leen intéressé te xamuñu ne nit ki mënoo dugg ci sëy mu neex boo xamul yow yaay kan xamoo fi nga jëm te xamoo ki nga doon donc xam ki nga doon daf lay dooleel daf lay may doole daf lay may connaissance de soi daf lay may aussi énergie may la nga xam say valeur xam li tax ngay comporté woon nii lu tax nga mel nii ba dootoo blâmer sa bopp dootoo culpabiliser sa bopp dootoo aussi juger ñeneen ñi parce que di nga comprendre aussi ñii ak seen type de personnalité looloo tax ñu mel nii du coup tolérance day gën a am compréhension day gën a am ouverture d'esprit day gën a am mais damay seetlu ni sénégal yi moom loo leen wax waxoo leen mbirum góor ak jigéen mbirum sëy rek daanaka presque waxoo leen dara kon nag nañu ubbi suñu mentalité yi tuuti jéem a def quête du savoir comme ni ngeen ko xame dañ fi nekk pour yëngal conscience yi indi leen ay vidéo yoo xamante ni macha allah daf leen di dimbali pour ngeen mën a avancer seen dund xam yéen ay kan xam fu ngeen jëm xam aussi euh, seen ay qualité ak seen ay tey ñu ñëw ci personnalité numéro 2 nekk ci centre émotionnel bi ñu koy wax euh, l'al l'altruiste l'altruiste wala aidant altruiste nag bu ñu ko waxee dafa nekk personnalité bi nga xamante ni moom dafay inspirer pour aider les autres kon altruiste bi tamit nekk ki nga xam dafa am facilité euh, rentrer en contact ak nit ñi par ses émotions la vu que dafay émotionnel dafay mën a percevoir émotionnel émotion wu nit ñi aussitôt tey bu jàkkaarloo ak yow rek tey dina mën a xam sa émotion bu di da nga triste bu di da nga kontaan bu di da nga jaaxle bu ko defee loolu radaar la bu mu am boo xam ne tey bu jàkkaarloo ak yow rek day mën a détecter ci saa si lan kes ki qui ne va te loolu dafa nekk loo xamante ni tey euh, nit ki daf ko am mu nekk loo xam ne tamit dooleem la kon altruiste bi nekk koo xamante ni dafa am envie aider nit ñi envie dimbali nit ñi envie tamit nekk nit bu indispensable maanaam nit boo xam ne dafay am njëriñ ci àddina bi ndax pour mu yëg importance am pour mu sentir ni nit la boo xamante ni ku am njëriñ ci àddina bi la il faut que muy joxe ndimbalam il faut que muy taxawu nit mi kon ñu gis ne personnalité altruiste bi ci jigéen ñi la ëpp que si góor ñi kon lan moo indi li nga xam ne mooy construction mécanisme aidant bi ndax derrière chaque comportement chaque caractère am na lu construire mécanisme bi tax nit ki di jëf di jëfee nii wala di doxalee nii te d'habitude ci yar bi ñu ko yar la ndax altruiste bi moom dafa teel a comprendre que ni man kat ah ngir nit ñi bëgg ma il faut que kon ma di may jëf ma di leen di defal ndax su ma defee lu baax dañ may tagg dañ may yëkkati dañ may fóon dañ may jox affection kon que ni. nit ñi dinañ ko bëgg nit ñi dinañ ko jox importance nit ñi dinañ ko valoriser mooy il faut que mu di leen di defal kon altruiste bi comprendre na depuis mu nekk xale pour mu recevoir la de ses parents ou de son entourage wala ci àddina bi yëpp sax li muy gis mooy tey boo dimbalee nit daf lay reetaan daf lay sourire daf lay tagg et que loolu moom dafa nekk loo xam ne lu mu soxla la besoin de reconnaissance mu nekk nag lu doy waar parce que d'habitude nit ñi mel noonu bu ñu ko gaaw a nangu parce que seen ego mooy tax tey bu ñu la nee ah dangay def li ngay def pour recevoir de l'amour la plupart ñi dañuy bañ ba mbëkk miir bi mais tey ku wéet xam sa bopp ku wax sa bopp dëgg ndax sincère sincère être sincère avec soi-même moo manqué ñu bari mais tey boo amul sincérité ak sa bopp doo avancer da ngay def ay pirouette di lakke lu tax li lay dal di la dal ndax façon nit ñi tamit ay nit la ñuy sonn ci amour ak ci relation ndax dañuy deflanteeg nit di la defal di la defal di la defal di la defal et li ñuy xaar rek mooy nga reconnaissant nga tagg leen nga yëkkati leen nga wan leen sa amour soxlawuñu leen en retour et par contre du demee noonu bu ko defee tout le temps dañuy frustré dañuy am xol bu naqari bu ñu avancé ci euh, construction du mécanisme bi pour mën a xam lan moo tax aidant bi dip mu nekk xale ñu gis nit ñi dañ koy bëgg dañ koy yëkkati dañ koy sopp parce que dafa mën a jox dooleem nit ñi dafa mën a jox alalam nit ñi dafa mën a jox connaissance am nit ñi kon ñu gis ni depuis xale xale bu serviable la maanaam lu ko waajuram sant day concurrence sax ak ak ay raqam par exemple bu yaayam ne e diw may ma ndox moom de moom day jóg daw indi ndox mi ñëw pour yaay ko bu yaay ji e diw defal ma li kooku yéexantu def ko parce que tout le temps yaay danaan diw dafa ma nangul moom moo ma gën a nangul sama doom yi moo ma gën a bëgg wala papa di naan moom moo ci gën a baax moo gën a dafa yërëm nit dafa am sama yërmande parce que ñoom dañu détecté loolu ñu nekk xale et moo forger seen caractère donc dafay dem nekk li nga xam ne mooy seen personnalité mënatuñ ko dindi parce que loolu mooy seen moteur essence kon gis ngeen éducation ni muy impacter nit ki ba construire sa sa propre personalité kon ñun ñëpp suñu éducation moo forger suñu personalité moo ñu def ku ñu doon kon ñu gis ni Aidant boobu depuis mu nekk xale day nekk koo xam ne day bëgg di concurrence di def lu baax et loolu tey dafay nekk loo xam ne moo koy dimbali pour mu mën a sentir que ni am na njariñ si fi mu nekk fi waaye ñu gis ni li ci gën a metti ci conséquence yi mooy tey euh, altruiste bi même bu demee ba màgg nit la koo xam ne tout le temps dafay renier ses propres pour euh, defar besoin ñeneen ñi maanaam tey pare na pour sacrifier moom boppam wala boog ay mbiram pour jàppale keneen ay projet keneen bàyyi boppam dañ naan kon xam nga ni loolu lu négatif lay mujjee doon ci jukko altruiste bi bien vrai moom da koy xam mais day wax ni man je ne suis pas capable nit demandé ba service ma ni non souvent kàddu yi muy utiliser mooy ah nit ki kay bu yaakaaree ci yow nit ku dox ba yaakaar ci yow ci yow rek la yaakaar même bu ma amul sax damay dem leb jox ko pourtant yàlla santu la loolu de yàlla suñu borom néew la nga leb jox kenn ba nga amulee rek ca la mbir mi wàcc na la moom ba nga munulee tamit ca la la mbir mi wàcc ba nga xamee ni yow lii nga fi denc da nga sa pour sa añ la pour sa reer la pour sa facture la pour kenn wala lebal ko kenn kon ku lu ko fi tax kon altruiste bi problème bi mu njëkk am mooy wax nit non nit ñi dañuy gis loolu moo tax dañuy abuser ci euh, baaxaayam bu ko defee moom tamit day xam ni nit ñi ñu koy wër la plupart nekkul dañ ko bëgg dëgg-dëgg mais intérêt lañ ko toppee moom da koy xam mais pourtant dafay mel ni mënul dagg lien boobu parce que tout le temps dañuy wax ni altruiste bi problème bi muy njëkk am mooy amul barrage entre moom ak ñeneen ñi tegul amul limite te relation ku ne xam ne bu amul limite on va te saccager bu ko defee di nga gis ni yow tu ne comprends pas lu tax et que ah kay comprendre nga bu baax que ne sa baaxu excessif parce que du baax mais benn besoin la bu nekk ci ginnaaw lu fait nga bëgg amour nit ñi jox la seen amour moo waral tey ngay joxe benn gentillesse bu excessif et cette gentillesse là dafa am peur bu nekk ci ginnaaw c'est la peur de ne pas recevoir l'amour des autres donc boobu tey mooy li nga xam ne tey moo waral booy defal nit njekk boo amul chance dina la trahir et que après da ngay ëlbatiku di yàq deram di tudd li nga ko defal kon bu boobaa ci l'islam moom da ngay daal de perte li la yàlla doon fay baax euh, ba pare nga tudd ko rek mooy amatoo ci benn tuyaaba waaye ba tey ñu gis altruiste bi nekk koo xam ni dafay taxaw comme sauveur tey surtout bu dee ci góor ñi da ngay gis ni tey góor boo xamante ni altruiste la am jikko sauveur même ci jigéen ñi am ah, tàyyi nañoo gis nit bu normal rek nit bu bu bu bu leen mënal dara wala nit bu leen di jëriñ dara rek ñu xaritoogee wala ñu bëgg ci wala ci matière mbëggante tey ci matière xaritoog tout temps dañuy gis ay nit yu jimmi ñu jéem a xaritoog ñoom di leen assister di leen apporter seen aide di def le tout pour yëkkati kooku mais une fois kooku yëkkatiku rek dañuy dañuy naan ah léegi da il n'est plus reconnaissant léegi da nangam sàngam léegi dafa changé fekk nit ki changé wu c'est juste que la personne n'a plus besoin d'aide te aide bi nga doon joxal démb moo tax mu lay tagg tey vu ko amatul amatul soxlatul ed mu ngi demal leen teg yow teraanga da ngay gis nit ki dafa changé fekk changé wul c'est juste que position moo changé donc ñoom loolu mooy seen perception erronée de la réalité tey même bu dee góor bi la tey mën na jëlee jigéen ci situation drastique defar ko jàppale ko yëkkati ko ba jigéen bi dem ba egg benn niveau bi mais tout le temps dañuy bëgg jigéen bi di leen di tàgg di leen di yëkkati di leen di gërëm bu loolu amatul rek da gis dañuy commencé di ko traité d'ingrats di ko traité que nit la boo xam ne elle n'est pas reconnaissant et tout te fekk ne li naan tàgg nit la personne tu es reconnaissant point et final mais ñoom euh, dañuy créer euh, dépendance ci nit ki lan mooy créer dépendance c'est une personne mooy tey nga fekk par exemple euh, deux bi bu dee dafa am jëkkër tey day fexe ba jëkkëram du mën a taal micro-ondes du mën a taal gaz bi du mën a euh, defal machine à laver moom day fexe même bu ko jëkkëram ne kaay ma jàppale la day bañ et pourtant fu mu toog sax mën na la mantew diw de du ma jàppale diw de nangam damaa sonn kër gi maay def lii maay def lii mais moom il ne laisse jamais son mari sa place pour qu'il muy occupé wu si lu mu war a occupé wu du bàyyi aussi jamais ay doomam mënal seen bopp autonome indépendant parce que day ragal ñii bu ñu autonomie indépendant duñ dootuñu ma soxla te moom fa bëgg nit ñi di ko soxla comme nit ñi dañu la war a soxla looloo waral tey bu la nit ki soxlaatul yow da ngay sentir nit ki est-ce que du daf ma délaissé est-ce que du daf ma bàyyi est-ce que daf may ignorer parce que yow tu pas nit ki loolu nga koy tàmmal muy dépendance yow tey bis boo feebaree wala nga tukki mooy sa jëkkër dina bëgg tàngal benn palaatu ceeb du ko mën parce que xamul micro-ondes bi comment ça fonctionne dina bëgg <laughs> taal gaz bi du xam nu muy fonctionner parce que musu koo taal dina bëgg a fóot ñaari t-shirt du xam machine à laver bi nan la koy taalee parce que munu ko ndax da nga créer ci moom dépendance et besoin de toi te loolu besoin boobu daf koy neex moom day kontaan parce que daan sama jëkkër daf ma bëgg daf ma teg fii daf ma teg faa parce que moom day gis fu mu dem jëkkër ji da koy woo waaw nan laa war a def ci machine bi nan laa war a toggee lii nan laa war a defee lii et que loolu am réjouissance bu mu koy jox même ay doomam tey daf leen di mën na mën na nekk ci bokk ci yaay yi nga xam ni ay doomam sax léeg-léeg ci ñenn ñi pas pas tous les altruistes mais ci ñenn ñi nga xam ne dañu dañu inconscient mën na dem ba nga xamante ni seen ay euh, doom duñu sax mën a autonome wala duñu gaaw mën a indépendant duñu gaaw mën toog wala duñu gaaw mën fóot duñu gaaw parce que seen yaay tout le temps day bëgg nekk nit bu indispensable kon dépendance ko jox alal ko jox loolu ak loolu ne bu liggéey créé ci moom dépendance ba jabar ji dina dem ba fañaak ba ñàkk wala jëkkër ji dem par exemple ba ba soos day am problème ci àddinaam parce que jëkkër ji daf ko tàmmaloon xeetu dépendance boo xam ne elle n'est plus euh, euh, disponible pour mën a créer sa propre bi kon altruiste bi lii dafa bokk ci ay mécanismes yi nga xam ne moom lay téye ay nit ki nga xamante ni ñoom la nekkal donc si sa personnalité la bokk bu ko renier da nga koy accepté même bu dee dafa metti parce que en acceptant ses défauts on arrive à s'évoluer d'habitude nag ñu nekk ay nit yoo xam ne dañuy euh, dañuy mën a jege seen seen seen entourage seen entourage leen di bëgg parce que du ñu gis ci ñoom euh, benn réticence ci edd maanaam ak lu ñu yor yor yor yor benn façon jikko émotionnel bi et tout da gis seen entourage dañ leen di bëgg dañuy bëgg di déglu seen conseil dañuy mën a conseiller nit moom même bu amoon innamaawu problème tay tey boo ñëwee mu ngi lay jéem a xool qu'est-ce qui ne va pas ah yow mi di dafa am lu xew lan moo xew lan moo la dal ndax dañuy percevoir émotion nit ñi ah yow sax kanam gii niruumalu nangam de nangam sangam bu ko defee ndeysaan nga ubbeeku wax ko mu conseillé la d'habitude dañu mën a assister nit ah leen di wóolu dañuy dalal sa xel parce que loolu tam dafa bokk seen ay moo tax d'habitude ay médecin ay infirmier ah ñuy liggéey ci crèche yi liggéey ak doomu aadama la ñuy doon parce que foofu mooy seen place tey altruiste bu amee beneen liggéey bu dul liggéey ak nit ñi di soutenir nit ñi liggéey boobu du ca nekk ci jàmm parce que altruiste tey boo ko tegee ci boutique di ko jaayloo daanaka eh, day maye marchandise ba wala ñu di ko leptal ñu ko fay ndax du mën a fayeeku bor waaw bien vrai que am na nag ñoo xam ne avec le temps elles sont elles se sont ba mën a def loolu mais tout le temps dañuy am lacune boobu parce que dañuy tendre à donner tout ce qu'ils ont mais tey altruisme boo koy liggéeyloo teg ko place bu am mbooloo ci ci def ko médecin <laughs> infirmier wala mu nekk sage femme wala euh, kuy nunu buy buy assister les enfants et tout wala nit boo xam ne day nekk ci ay bénévolat et tout mais sinon rek day nekk nit koo xamante ni day naan man mënuma jaay man mënuma fayeeku bor man mënuma nangam te nit ñi dañ koy xam ci moom ba buñ ko lebee sax duñ ko fay parce que xam nañ kii du fayeeku bor waaw mu ngi noonu kon ñu gis ne altruiste yi macha allah dañu am qualité boobu qualité mën a joxe te duñu sonn muy qualité suñu euh, suñu suñu saxaaba boobu euh, Aboubacar Saddiq nga xamante ni tey comme ñu koy waxee rek yonent bi sallam da daan da daan tagg Aboubacar Saddiq bés jot Omar ibn Khattab ñëw daal dina tey moom Aboubacar Saddiq du ma gën a du ma gën a mën a joxe donc yonent bi sallam di laaj te euh, ku nekk lu mu def ñëpp di lim Omar daal di ñëw daal ñu laaj ko yonent bi sallam daal ni ko Omar looy joxe. Omar daal ne ah joxe naa sama alal yonent bi sax ne ko sa waa kër mu ne xaaj naa ko ci digg bi jox naa sama bàyyi naa sama waa kër genn wàll jox naa la genn wàll ñu laaj Aboubacar Aboubacar daal di joxe yonent bi sax ne ko Aboubacar loo bàyyi sa waa kër mu ne bàyyi naa leen yàlla ak yonentam kon xam nga ñaar ñi duñu mës a mën a bokk capacité parce que personnalité yi bokkul donc kii ragalul ñàkk parce que personnalité la kii day xalaat tout le temps mettre ñëpp ci justice muy Omar Ibn Khattab kon tey bu dee ki nga xam ne personnalité perfectionist bi nga xam ne moom dafa bëgg lu juste moom tey bu bu fekkente ni dafay def dara mën na ne ah man du ma injuste te injustice mooy xañ say njaboot jox keneen loolu duma ko def altruiste bi non dinaa non sama njaboot moom incha allah yàlla dina ñëw naa jox kii rek comme moom moo soxla kon xam nga ñaar ñu bokkuñu ni ñu gisee àddina te bokkuñu ni ñu doxalee te bu ñu sëyee problème bi dina bëri. leneen li nga xam ne nag mooy problème altruiste bi mooy cette besoin d'être aimé ak cette besoin d'attention ak besoin d'affection altruiste bi problème mu besoin boobu tey dafa nekk loo xam ne moom du ko gis ñeneen ñi tamit euh, duñ ko gis mooy dafay bàyyi xel nit ñi torop ci dundam ci luñ koy taggee ci luñ koy yëkkatee ci luñ koy niwee ba bu nekkee fenn nit ñi tagguñu ko rek moom il elle se sent mal ou parce que dafay nekk loo xam ne moom pour moom c'est impossible muy def des choses et que nit ñi duñ ko gis bu boobaa nag mën na commencé di frustré wu mën na commencé comme dafa émotionnel day jooy lu bëri day nit ku mën a jooy bu meree day mën a jooy moom day dem à l'extrême ci ay émotion am donc ay émotion dafay intense bu kontaanee tamit noonu lay jeu viviale am énergie mën a ko indi kontaan ci ndaje mën a mën a indi kontaan ci kontaan ci mbooloo mën a yëkkati nit bu déprimé et mais aussi noonu ngay gisee aussi bu meree mu ngi noonu kon ñu xam ne force ak faiblesse am mooy force am mooy nit la boo xam ne dafa mën a comme ni ñu ko waxee dafa mën a percevoir émotion wu nit ñi xam ko mën a déglu nit mun a assister nit mun a dalal nit. nekk ay nit yu empathique nit ñoo xamante ni vraiment dañu dañu dañu mën a xam li naqari nit wala li neex nit. kon ñu nekk nit ñu mën a déglu nit nit ñu compatissance. nit ñoo xam ne duñu juger nit dañ lay déglu sans juger la wala sans di la di la opprimer waaye ci paradoxalité bi ci seen faiblesse mooy dañuy am besoin ñoo leen di apprécier ak di leen di yëkkati ak di leen di am fu ñu leen di teg te duñu bàyyi xel que ni léeg-léeg dañuy dugg ci ay jeu ak mécanisme de séduction tey bu ñu waxee séduction nit ñi waxu ñaar ñu nobante la ñuy xalaat déedéet séduire nit mooy par exemple fexe neex nit ñi fexe nit ñi bëgg la tout le temps dañuy séduire nit ñi tey bu ñuy wax ak yow ah seen façon waxin seen façon doxin seen façon jëfin ni ñuy jëflanteeg yow dañ lay séduire ci seen ay jukkoo ci seen ay doxalin ba nga bëgg leen ba nga commencé ndeysaan di leen di apprécier di leen di yëkkati. te léeg ñu du ñu duñu euh, hésiter di vérifier wala di natt que ni kiikat kat bëgg na leen. te léeg-léeg loolu mën na paradoxe parce que ñoom pour ñoom nit ki bu la bëggee daf la war di wax wala di la di jox te bu ñu xoolee ci personnalité ennéagramme yi am na ñoo xamante ni mënuñu tàgg nit parce que du question ni euh, dañu bon mais c'est juste que duñu ay nit yu bëri wax pour di nekk géwélu nit. waaw bu ñu gisee sax nit kuy tàgg nit lu bëri da nga leen di énervé kon tey altruiste bu dajeek nit ñooñu day am problème. ñu nekk tamit ay nit yu optimiste ay nit yu mën a espérer ay nit yu mën a yaakaar nit ñoo xam ne dañu gaaw a xàddi tey même bu ñu nekkee nit ci relation bu ñu la bëggee mën nga leen di mbugal te duñu dem parce que tout le temps balaa ñuy gis musiba rek fekk boobu dem nañu ba day mel ni mbottu ba ñu dugal ci ndox mu tàng mu naan tàngagul tàngagul tàngagul ba ndox ma bax nga ñor bu ko defee dootu mën a sax dem parce que amatoo la force kon ñoom dañu nekk jigéen ñooñu nga xam dañu nekk ci kër di fa sëy mën nañu joxe joxe joxe def lu nekk am ngërëmu njëkkee ngërëmu goro ngërëmu ñëpp et pourtant seen jëkkër mu ngi leen di mbugal mais heure bi ñu xëyee ñu ngi koy masquer avec le sourire boo leen gisee ñu tagg seen jëkkër di ko yëkkati da nga naan ñoo fi mais bu ñu toogee wax la la ñuy dund rek yow nga pare àddina nekk nit ñoo xam ne presque tout le temps dañu nekk en bonne humeur ba tax na jafe na nga gis seen jaaxle parce que tout le temps ñu ngi yaakaar ni ñoom dañu war a soutenir nit ñi dañu war a taxaw nit ñi ba bu ñu jaaxlee sax pour ñu am ku leen di soutenir problème lay doon. waaye nag ñu nekk nit ñu soxla échange ak communication kon tey euh, personnalité deux bi altruiste bu dajeeg tey par exemple di sëy ci kër goo xam ne nit ñi duñu waxtaan ak moom wala mu dajeeg jëkkëru introverti bëriwul wax moom mu nekk koo xam ne ambiverti la doon wala extraverti day am problème dafa bëgg di wax moom dafa bëgg waxtaan waaye nit la ko bëgg waxtaan ouverture d'esprit et tout bu dajeeg nit boo xam ne bëggul waxtaan nekk introverti di tëju ci côté moom day dof moom moom day dof moom parce que moom mënul concevoir nekk nit waxtaan ak moom te bi comme ni ñu ko xamee des fois day soxla ces euh, moments wax kenn moom loolu du ko mën a comprendre dina ko jàmbat àddina bi yëpp ba ñëpp xam ni moom dafa am problème parce que nit ki bëggul di échanger ak moom et que day demander question est-ce bëgg na ma fekk na xamul ni mbëggeel kenn du ko nattee <laughs> ci nit ki dafa bëgg wax ak yow wala bëggul wax ak yow c'est kii lii nature la wax ju bëri daf koy sonal yow noppi gu bëri daf lay sonal. ba tey tamit dëy bi nekk ku mën a valoriser maanaam ku mën a valoriser boppam tey même bu toogee ci mbooloo wala muy liggéey fenn ku nekk di wax pour euh, ay projet wala ay pour ay réunion moom mën na sax di wax ay yu mu jot a réaliser lu mu jot a def ba mu yëkkati ko et pour nit ñi wa pour nit ñi wóolu ko wala pour nit ñi yëkkati ñu gis ni li négatif nag ci euh, personnalité type mooy le fait que muy nier di bàyyi du bàyyi xel ay désiram ak ay besoin am day fa mën na maanaam bu dajaloowee rek bu yàggee mën na génn te bu génnee dafay explose par exemple mën nañu gis tey yaay bi nga xam ne tey euh, bi muy nekk jeune dafa bëggoon liggéey ci dara mu daal di koy sacrifier pour consacrer éducation ay doomam fexe ay doomam euh, nekk am équilibre tout tey bu doomam yooyu demee ba màgg mën na projeté def projection par exemple dafa bëggoon nekk euh, benn euh, commerçant de haut niveau wala mu nekk benn écrivain wala bu nekk quelqu'un tey mën na topp doomam bëgg ko inciter doom bi def moom li mu doon rêvé bu ko defee mun na dem ci l'excès taxaw mun na féete foo xam ne tey Euh, projection boobu day dem ba nga xam ne mën na ci fatt entourage am parce que day bëgg moom ay rêve ay doomam réaliser tey bu nekkee ay doomam tey mu dem ba jëm mag tey day bëgg di maanaam dafay topp ay doomam teralal diw defalal diw nangam diw nangam taxawal kii duguli même bu ay doomam buggul wala amuñu daf leen di teg benn pression ak benn choc boo xam ne day dem ba dafay toxique te boobaa tey mën na inciter ay doomam ñu dem ba nga xamante ni day dootuñu am épanouissement ci seen dund parce que day bëgg ay doomam di comme moom na muy def wala comme moom na ba muy am ni mu daan def paccaru ak di yàq di joxe ci loo xam ne xëy na ay doomam yeneen personnalité lañu am mën am dañu bëgg a seen dund bëgguñu construire dund nit ñi moom par contre construire dund nit ñi moo ko gënal construire dundam du coup bu nekkul nit bu dem ba am développement personnel dem ba àgg ci maturité mën na nekk nit boo xam ne balaa muy éveil am éveil de conscience xam ne li muy defal nit ñi lépp moom c'est au détriment de ses propres besoins balaa muy xam loolu mën na metti mais nag képp ku ci jël conscience aussi nit lañu aussi yu capable créer seen dundu defaruwaat pour mën a euh, jëriñ seen bopp te xam ne euh, tey créer dund nit ñi du la indil benn rendement mais mécanisme boobu tey bu fekkente ne amuñu sagesse rek wala xooluñu seen entourage am éveil de conscience mën nañu insister seen seen doom wala seen jëkkër ci defalal kii taxawul kii dimbalil kii placel ki comme si c'était <laughs> ñoom missionnaire lañuy yebal pour ñëpp daal di nekk ñëpp am jàmm. beneen problème bi nga xam ne moom la personnalité de bi am mooy mënul demander aide directement. tey li muy mën a aider yëpp bu amee soxla pour mu laaj ko presque mën na ñëw nag jàmbat la jàmbat la jàmbat la jàmbat la jàmbat pour yow nga jëli parce que moom day jëli parce que moom bu fekkente ni tey bu fekkente ni yow yaa ngi koy jàmbat lu yàgg rek moom day jëli ni ah yow da nga soxla xaalis ndax dafa émotionnel dafay percevoir ah mais moom bu ñëwee di jàmbat yow mënoo percevoir mënoo comprendre affaire bi da koy metti da koy frustré da dafay bëgg nit ñi deviner tey mën na nekk ak jëkkëram am soxlaam ndeysaan du du mën a ñaan mënul ñaan mënul laaj di topp jëkkëram di ko di di ko jàmbat di ko jàmbat pour jëkkëram jëli wala tey mu soxla affection di topp jëkkëram di di jàmbat moom day jàmbat léegi buy jàmbat di jàmbat jëkkër ji jëli pour jox ko affection te léegi-léeg jëkkër ji mën na bañ a jëli jame affaire bi da koy frustré da koy naqari day donc di coup da ngay gis ni nit la boo xamante ni jàmbat la gën a mën que ne la ah man lii laa soxla moom pour moom loolu daf ko diis kon ñu gis ni moom dafay faral di rey boppam ci vraiment liggéeyu kër gi surtout bu dee jigéen la ci def lii ci def laa ci lépp baax lépp kii ah, mais quand même da ngay gis ni pour mu toog rek mooy feebar na te bu demee ba feebar nag d'habitude dafay bëgg di abuser ci feebar bi <laughs> day abuser pour nit ñi jox ko affection pour nit ñi maanaam da ciy profité pour nit ñi jox ko affection attention yërëm ko yëg ko. moo tax moom bu feebaree jëkkëram assisté wu ko moom dafa mel ni dañ jël paaka xotti xol bi daggat ko ay morso sànni parce que loolu moom mënu ko comprendre ndax moom bu nit feebaree dafay dem corps ay am pour assister la bu nekkee ci kër mu feebar ñu ignoré ko wala boog duñu ñëw di koy seet chaque jour yaa ngi tane noo def yaa ngi nangam duñ koy xool ñu koy seet duñ koy yëkkati duñ koy nepp neppal duñ koy balbalal moom loolu dafa koy nekk situation émotionnelle bu chaotique boo xam ne elle n'arrive pas à le digérer te après da koy téye ci xol bi da koy naqari heure bu ko xalaatee capable na di ko jooy ba affaire bi da koy metti te du ko fàtte heure bu ko xalaatee fii fukki at mën na ko di jooy di jooy di jooy parce que danaan comment se man may rey sama bopp ci nit ñi te man su amee besoin du ma gis kenn wala boog duñ ma assister comme man ni may assister nit ñi. ba tey ñu gis ni ci côté bëgg affection boobu tam dina tax des fois deux yi si seen côté négatif ñu nekk ay manipulateur wala ay manipulatrice manipula manipulateur affective dans le sens que bëgg di recevoir émotion wala attention wu nit ñi day tax des fois ñu leen di manipuler ci yenn situation yi pour créer nit ki jox ko attention assister ko des fois sax mën nañu créer feebar feebarlu ah feebar lu wala gaañu gaañulu wala créer ay feebar pour juste recevoir affection ak attention parce que dañuy gis ni am na nit ñoo xam ne ñoom tant que feebaruñu rek duñ leen di assister ba tey tamit ñu gis ni euh, personnalité de yi ñu mën a flatter lañu maanaam ñu mën a jaay nit lañu ñu mën a yëkkati nit lañu teg la foo eggul parce que ñoom tamit dañuy bëgg retour boobu dañuy bëgg buñ la flatter jaay la yëkkati la ba nga egg fenn fi yow it nga daal leen koy delloo. ba tey tamit bu ñuy gisee nit mu nekk nit bu froid maanaam que ci ligne ñi am na ñoom bu ñu gisee kooku rek mën nañ la réprimer maanaam mën nañu la gis ah, vraiment ci kii ni ma ko jéppee xool ko du reytaan du kaf du kii man nit ñi ni ma ne donc dafay am benn benn benn naqar gum la téyeel parce que tout simplement day gis ni yow du gis sa sourire doo ubbeeku woo doo nit bu xam ne mën na waxtaan ak yow mën na ni man man de man nit bu noppi ni mu ko ragalee man de man nit ñu dul kii nangam sangam mën na la créer ay sikk parce que ñoom tamit dañu am tendance <laughs> être dans l'extrême bëgg nañ la dañ lay aj mooy nit ñoo xam bu ñu la bëgg dañ lay yëkkati yëkkati yëkkati dañ lay tagg ba seen entourage seen ay mbokk xar yi ba yi muus ñi ñëpp lay xam parce que dañ la bëgg parce que dafa am maanaam fuñ la teg mais buñ la bañee dinañ lay wàccee wàccee wàccee wàccee wàccee wàccee ba ñëpp wàccee la kon dañuy wax ni personnalité altruiste 2 bi euh, tey bu tàndee ci développement personnel rek dina nekk nit bu mën a nekk ci digg doomu maanaam <laughs> nit ki boo ko bëggee aajur nga koy teg ba mu egg fenn fi di fecc sa digg bopp nit tamit boo ko bañee réserve amal réserve parce que on ne sait jamais ce que le destin nous réserve kon li ñuy gis tamit ba tey ci défaut euh, altruiste bi mooy rëy waa nit la bu rëy bu am fierté waaw ndax rëy bi mooy lan mooy moom day gis li mu arrivé li muy def day gis succès yi muy def day gis aussi nit ñi fi ñu ko teg day gis aussi et loolu yëpp day tax tey mu yëg boppam waaw day yëg boppam day am benn fierté donc dañ koy wax tamit bu fekkente ni da nga toll ci phase boobu avec le temps boo jëlee sa vie en main euh, di nga mën a dem ba nga xamante ni di nga accepter am humilité accepter wàccee sa bopp trop lu xam ni euh, loolu mooy doole nit. aussi avec le temps de bi comme ñu ngi ñëw ci côté sagesse beeg conseils yi nga xamante ni tey boo demee ba am détachement émotionnel aussi di nga mën a euh, am li nga xam ne mooy. Euh, euh, di nga humble ci booy dimbali nit ñi tamit nga bañ am benn attente nga moytu aussi di xaar ci nit ñi retour d'affection wala tagg parce que des fois loolu mën na nekk sa principal problème ak nit ñi ak sa relation ak nit ñi mën nga dem ba bàyyi nit wala nga dem ba am loo jàppal nit parce que tout simplement xëy na euh, tegu jàpp nga ni yëkkatiwu la wala fonk la parce que xëy na du faral di di la di wax lu bari aussi nga dem ba nga xamante ni booy dimbali nit na fekk mu nekk loo mën boo ko mënul nga résigné wu te xam ni yàlla dina ko boole keneen ko ko mën a dimbali waaw ak loo ko bëgg-bëgg tamit del xalaat sa bopp di bàyyi xel say besoin di bàyyi xel tamit li nga mën ak li nga mënul te bañ di ut neex nit ñi parce que tout le temps booy ut di neex nit ñi tout le temps da doo doo doo doo authentique doo authentique dëgg la da ngay ragal nit ñi bañ la wala dangay ragal nit ki réprimander la loolu loo ragal la mais da ngay comprendre ci àddina loolu du ci ñàkk foo jaar dina am la bëgg dina am la bañ et am na ñoo xam ne dañ lay bañ parce que dañuy percevoir sa côté excessif boobu gis ne lii ngay def dañ ci bëgg attention bu boobaa ñoom dañ lay xañ loolu te boobaa genre nit ñooñu du ngeen mën a def parce que dañuy gis ni yaa quelque chose de louche ci sa def gu bëri gi que ni naturelul ngistal wala dangay def te ndax leneen a tax te effectivement loolu dafa nekk dëgg parce que tey am na ci deux yoo xamante ni tout le temps man dama leen a xam et tout vu que ñoom ak yi des fois dañuy xaw a am tuuti nuroo dañuy nuroo bu ko defee ñu bëri duñu mën a distinguer entre altruiste ak tamit dafa am personnalité bu forte caractère nit la tamit bu mën a imposé ku mën a mer la tamit ku mën a bu meree tamit ku mën a macha allah am xadar la te xadar googu des fois day tax ñu koy jaawaleeg leader mais foog ngay xàmmee altruiste ak leader mooy leader utul ku ko tagg et que pare na pour nit ñëpp bañ ko contre moom ça ne l'intéresse pas affection nit ñi te tamit du du faral di joxe affection du coup da gis ni détails yu sew yooyu rek mooy taqarle personnalité yi kii rek moom. pour affection pare na pour muñ yenn yi te ki nekk personnalité de kooku am na yoo xam du ko muñ du ko nangu du ko accepté waaw ah, te du ne kenn gis naa yàlla te gisuma yàlla donc du coup foofu lay personnalité yi di daal di séparé woo kon en tant que altruiste jàngal aussi di teg say limite di teg say barrière te xam ne nit ñi boo dul teg limite teg barrière sa digg boobu bi la ñuy fecc lamba daatu du ci mën dara bu ko defee nga def koy jàmbat ak di laajte lu tax ngay defal nit ñi lu baax ñu la fay lu bon lu tax sa relation yi dafay chaotique lu tax doo am xarit bu bu sincère lu tax nit ñi di la utiliser lu tax nit ñi di la manipuler lu tax parce que toutes ces choses là yow yaa leen jox caabi bi nga xamante ni mooy caabi yu bëgg affection ak am attente ci seen amour moo tax ñoom it am occasion def loola leen nga apprécier sa qualité bi nga xamante ni mooy mën a dimbali nit mën a taxawu nit loolu sa foor la doo ko yam leeg benn personnalité tey personnalité bu mu mën a doon lu mu mën mën mën ci nit du la dab du la dab ndax loolu li may wax naan àddina bi comme ni ko yàlla sàkkee dañu soxla ñëpp te sa personnalité dafa bokk ci personnalité yi ñu soxla ci àddina bi te mu nekk tamit personnalité yoo xam ne macha allah dañuy def ay liggéey yu am solo kon nga fier aussi ci li nga xam ne mooy déjà euh, li la yàlla may ndax ku ne am na lu la yàlla may loo bokkul ak kenn loolu mooy li nga xam ne tamit mooy macha allah euh, euh, pépitu personnalité yi. kon mbokk yi ñu di leen di wax ni rek comme ni ñu leen ko waxee woon ñi bëgg approfondir ci ennéagramme mën nañu dem ci suñu site ñu jënd cours yi fa nekk nga xamante ni macha allah neuf personnalités yi ñu ngi fa ñu daal di koy traité d'une manière bu daal di leer naññ bu ko defee dinañ mën a am lépp li nga xamante ni rek mooy liñ ci doon ut bu ko defee dinañ mën a complété li nga xam ne mooy li manqué ci yenn facettes yi pour mieux se découvrir pour mieux aussi connaître son entourage pour mieux aussi nit ñi ngay liggéeyal wala ñi nga dëkkal parce que des fois booy booy liggéeyal nit mel nii wala tey ngay wujjeeg nit bu mel ni type 2 tey nga dee ndax <laughs> daf may def ree ndax nit booy wujjeeg altruiste nga gis nit kii du sonn ci defale du sonn ci joxe du sonn ci maye nga naan dafay ngistal li muy def gëmu ko nangam sangam dugg na fii te fekk na loolu moom la nature am la munu du changer du dañ kenn munu ci dara kon bu boobaa bu ci sa xool dagg da ngay xam ne kii lii la mel man meluma noonu nga seet sa personnalité nga gis ko nga bëgg ko nga may sa boppu jàmm waaw bu ko defee ku nekk am nga sa foor am nga say qualité nga respecté ko kon mbokk yi ñu leen dafa beneen incha allah di leen wax ngeen partage partagé partagé ngeen di aimé ah macha allah abonné ci site yi dina ci am solo lool salaamaaleykum